بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ngi ndokkeel jullit yépp ci weer wu tedd wi ñu nekk xanaa ñu mayaat leen ñaan boo xam ni comme bokki jullit yépp ñu ngi wàcc jëm tuuba ku ko ci def insha allahu taala sama borom dana la sàmm nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm fekk fa jàmm te moo di boo di dugg oto da ngay duggaale njàpp soo toogee nga jàng suuratul qadri ma jàng saar bi ngir ñi ko mënul bismillahi arrahmani irrahim ina anzalnaahu fi leylati alxadri wa ma adraka ma leylatu alxadri leylatu alxadri xayru min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matlail fajri képp kuy dugg oto jàng ko daa wàcc ak jàmm sama boroom dana la musal ci accident dee leen ñaan mbokki jullit yi ndax ñaan mooy ngànnaayu jullit ngeen àndoon ak seen mbokk imaam Saalihu Ñang ci émission bi ci seen yoor yooru aljuma man ngeen jot imaam ci 77 060 96 70 ndax daañu ñaanalaate ci lépp lu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani